والقلم وما يسطرون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 بنعمة ربك بمجنون ما شاء الله Mbàkke pour gën a leeral rek pour nit ñi siifur ñu xam mooy itam leetar bi bindoo ci lenn luy xaw a niru lu jëm sa sa yow mais da koo def rek loo xam ne pour comité bi li nga yor rek la maanaam maanaam loolu laa lay doon wax hmm. maanaam nit ñi wax man gis naa kuy wax naan dañ ko war a arrêté laaj ko <laughs> parce que lim bind def nii naan est kan mooy invité <laughs> eh, maanaam ndax moom moom du bind consulat yi ak ambassade yi sax di nga laaj pour bu ñëwee ay cadeau yi ñu koy indil maanaam kooku mm. moom ñàkk a xam mm. donc mënees na ko jégal parce que kooku xamut mbir yi wala boog wax na avant may wax man ah tey na nekk am na keneen ku ma dégg mu mu maanaam muy muy wax itam ba di jaxas yu ci bokkut mm. xëy na ba muy wax encore man waxaguma waaw xëy na njuumte moo am parce que loolu dara euh, xëy na ñëpp xeer pour bëgg a defar euh, ba tax na man du ma rapproché kenn du ma wax kenn man daal ba ma ba ma déggee wax jëm ci man dégg nga donc wax naa leeral nag def naa ne leeral naa ci ak ci ay teggin ak i xam-xam dégg nga ak nag donc diplomatie bu mat sëkk la ma wax man donc te itam buñ ma laajoon wala ñu wax ak man dégg nga ma doog a gis. Mm-hmm. wax ji nga xamante bi man lay accuser directement wala man lay jéem a desawuye kon du ma wax. Mm-hmm. waaw te ba ma waxee dem booba laa ca pare woon moo tax. vidéo même même man bëggatuma dugg ci loolu. parce que vraiment donc c'est un débat boo xamante bi ah. donc tëj nañ ko. amul solo euh, ñi ci war a xam ñëpp xam nañ. mais nag euh, pour leeral ñeneen ñi nga xamante bi ñu ngi ciy jaxase yu ci bokkul. Mm-hmm. xëy na moo waral sax ma nangu. dégg nga waxtaan wi nga xamante ne bii. donc man maa ngi koy def ba ma paree dama noonu du ci waxaat mais nag. comme mën a waxtaan yeneen yu am njariñ hmm. dégg nga man ay nit mën nañ ca dellu ko xam-xam hmm. man mooy sama objectif mais du du polémiquer wala hmm. may continuer la la donc am na loo xam ne nag comme dugg comme dugg nañ ci mbàkk fekkee mën nañ ko accordé waaye baax na ndax dañoo dégg itam koo xam ne ci wàllum politique la la xaw a ak kisi honorable député Serigne Cheikh Thioro tudd sa tur waaye ni mu waxee def ne ki génne lettre bi day sax dafa jàpp na kon yaa ko génne dañ koo faloon ci postu tekki ndombal tànkam moo ko naqari mu bëgg a jaxase muy yeeg état bi moo tax mu génne ko loolu loolu ndax dégg nga ko. man euh, ka gën a tuuti ci yoonu murit. Hmm. gën a tuuti ci yoonu murit. Hmm. man intérêt politique. Hmm. du tax ma xarab ko. mbaa ma bëgg koo maanaam euh, discrédité. man defe naa ne am na ñeneen donc ñi may war a waxal ñi may war a tontu. sama jëf hmm. dégg nga tontu na ku ko xamul nag ku donc ku eñaanaa ba xamoo xama ko hmm. man samay position donc tontu na ñi ma xam tontu nañ hmm. koo ko wax loolu xëy na mi ngi may dégg ma di ko dégg ay waajuram ak ay maamam xam nañ ma xam nañ seen waajur xam nañ seen maam foofu dong laa yem te maam daal génn boo ko yow ma boobu dama ci dul wax. xam nga. Ah, xam nga xam nga xoo maanaam mën naa ne parce que bugguma. dëgg dëgg la wax ci. maam lu may wax li may wax daal man doy na man. su may tontonteel am na am na ñeneen. Hmm. dégg nga maanaam ñu may tontonteel ak ñu may waxal am na wax yoo xamante bi maanaam bugguma ci woon yegg mais dinaa ko wax moo mbott yi yi ngoox. Hmm. man laa yemale. maanaam fexe ngàcc ndox ma. Hmm. ba du doog ko dégg du la tàngal. mais awma ci lu ma ciy commenté xoolal maanaam ñooñu du maanaam maanaam on ne boxe pas dans te te li am na ki ma dégg ñu ne mooy wax hmm. moom moom xëy na moo ma réere hmm. ay waajuram réere wu ma hmm. ay maam réere wuñ ma réere wuñ samay maam ci jàmm lañ séq ak ngor dégg nga euh, ba tax na man kooku moom ci boppam lu jëm si woon ci moom tey maanaam du pour moom de mais pour ay waajuram dégg nga wala pour ngir jëm sëñ Fallu mi nga xamante bi moom la ay ay waajuram ak ay maamam hmm. dégg nga toppoon dégg nga maanaam lu lu waroon jëm si kawam tey maanaam man dégg nga sama kaw lay dal malgré mën naa ne dégg li dox sama diggante moom donc donc bari na kon man du ma wax ci benn intérêt dégg nga personnel wala may maanaam yëpp ku mu wërta yëpp mm. dégg nga maa ngi wax maa wax tey moom bu newoon ci situation bu na a garaaw bi may nekk tey dégg nga man lu ne dee ma jaral ma défendre ko donte li dox sama diggante moom donc sori na lool mais man donc noonu laay doxee donc am na ñoo xam ne man du ma tonton rek ñoom parce que maanaam maanaam nit ki soo ko xamul soo ko xamul dégg nga ay nga waxoon moom xamuma mais ay waajuram xam nañu man xam nañ fi nga bëgg a waxee Mbacke ay maam xam nañ ma ñu ngi waaw ñu ngi jéglu sax ci question boobu ndax comme ni euh, kon a yitteel bokk na ci muy màggal gi kon ñu jeexale ci bi rek gan ñi ren nag ñëw nañ ñibbi nañ ban bilan ngay def ci wàllum organisation rawatina ci wàllu relation euh, li nga xam ne gis nga ko ci ndax am nga satisfaction bu baax a baax ci sa mission. alhamdulilah man li ma ci euh, man sama satisfaction su ma amoon satisfaction te sëñ Mountakha amul satisfaction kooku du saf xorom. Mm-hmm. man satisfaction sëñ ñu ko gis si ko. malgré li xew lépp yàqul la dara. loolu man euh, li ñuy wax ne donc le chien dégg nga mm. donc le caravane passe. Mm-hmm. vraiment man li may xalaat fi ñu toll. Mm. màggalu deux di ñaan yàlla. mu bàyyi ñu fi ñu fekke ko ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla bàyyi ko fi ñu fekk ko nu ñu mën a def ba gën a mën a liggéey hmm. liggéey bi nga xam ne fu mu toll ñu yóbbu ko fu gën a sore loolu loolu moo ne sama bopp maanaam topp ma kenn leen hmm. maanaam euh, dëgg la dégg nga man du ma tooñ kenn hmm. dinaa fexe xam lu may def ci xam-xam laa koy teg donc li may def ci raison laa koy teg mais nag euh, maanaam ku ma làmb nag daj ma ah, maanaam daal ci gàttal moom kon am nga satisfaction baax a baax. ci liggéey bi alhamdulilah à à mille pour cent. ndax satisfaction sëñ Muntaxa rek. Hmm. man mooy sama satisfaction. te gis nañ vraiment ci vidéo boo xam ne nga yóbbu gan ñi mu bég lool ndeysaan di ree eh, yaakaar loolu démbale woon xaw la màggal la. ah allah gan ñi fi ne ñibbi nañ xanaa. waaw fi ñu toll am na ñu ñoo xamante bi ba tey ñoo fa des. ñu ngi ah. dem am na ñu dem biig ci guddi ñu dem hmm. ci fajar dégg nga am na ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi aéroport nii di embarqué ñeneen ñi si mujj moom suba la ñu jeex te ña nga fa donc taalibe Sëñ Tuubaa dara leen gënale leen